yàlla dogal tey ci code pénal bi lañu ñu dal ni ñu dalee ci code pénal bi itam l'homme est derrière sa langue am na ñu ko wax fii ndekete am na lu tax ñun dañu defoon ne loi dafa impersonnel ñun dañu defoon ne loi dafa général waaye am nañ lu wax li ko lee yëkkati loi bi yow nag nga am loo ñu diggoon li nga ñu diggoon mooy les grandes réformes bi nga woo ñu ko séq ñu waxtaane ko ñu wax ko fu nekk sa collègue ministre toog na fii sax revendiquer benn loi ñu ni ko loi boobu garde de so lañ koy diggee lañ koy lañ koy lañ koy sante ndax garde des sceaux moo ñu taxawu boole ñoo ay service am ñu xool ko fu nekkoon délit ñu criminaliser ko requalifier les faits requalification des faits boobu nag yaa ñu ko jàngal ñu mokkal ko tax ba gis ni nga requalifier les faits kenn du fi génne texte 2016 parce que mënuloo ni effectivement ci arti ci titre 2 article 279 alinéa 1 ñu ngi assimiler manifestation yi à des actes de terrorisme te loolu mooy jéem a neutraliser opposition bi mooy empêcher le peuple de faire de de mettre un frein à ce qu'on appelle un objectif de faire une troisième candidature te loolu peuple bi kenn mënu leen a alerte soo gisee ñuy wax wax ji ñuy wax c'est-à-dire que fii majorité mécanique moo fi nekk waaye majorité mécanique boobu dafa am ku leen ëpp doole muy le peuple monsieur le ministre ma di la wax ni la li nga xam ni moom la ñu moom la ñu nangu moom la ñu jàppoon ni mooy terrorisme ñun di nga ñu waxaat léegi booy tontu lan mooy terrorisme ndax ñun li ñu xamoon ci terrorisme mooy terrorisme bi ñu ko waxee ci senegal dañ cee boole woon kilifa diine yi boole ci société civile bi boole ci groupement de femmes yi man en tant que maire defoon naa ay comité de veille pour que képp koo xam ne ñëw na ci koñ bi te nga xam ni amul profit boo xam ne dal na xel nañ ko signaler tout ça pour freiner le terrorisme tey bu ñu bëggee ne un honnête citoyen un opposant qui qui qui qui fait des manifestations tey ñu bëgg ko assimiler terroriste ñun bu boo paree di nga ñu wax lan mooy terroriste monsieur le ministre boo paree di nga ñu wax lan mooy appel à l'insurrection monsieur le ministre parce que boo waxee opposant mu ni résistance te tey résistance boobu suñ ko bëggee assimiler requalifier les faits de l' appel à l' insurrection dénoncer du terrorisme boo paree di nga ñu wax lu mu signifier monsieur le ministre en page 4 du rapport wax nañ redéfinition de l' association de malfaiteurs di nga ñu wax association de malfaiteurs mooy lan bala ñu koy bala ñu koy caractériser à des faits de terrorisme monsieur le ministre li nga xam ne moom la ñu bëgg loolu moom la ñu président digoon mooy ni dina dugg dugg di wax ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yooyu infraction liée aux technologies de l'information et de la communication di nga ñu wax fan la jëm di nga ñu wax fan la jëm parce que réseau sociaux yi dollu nañ foo xam ni kenn mënatu leen a arrêté monsieur le ministre yooyu boo ñu waxee définition yooyu wax ñu ni nga xamee ni moom nga requalifier les faits ñu wëlbatiku pour alourdir les peines bu boobaa dinañ xam ni li génne woon 2016 redéfinir nañ ko comme le comme comme terme bi ngeen ñu jox te buñ ko redéfiniré effectivement dinañ alourdir les peines bu ñu alourdiree les pen loolu mooy dal ci kaw nit ñi mooy dal ci d'honnêtes gens mooy dal ci ku ñu bëgg a dal te loolu itam ni ma ko waxee woon rek monsieur le ministre majorité bi mën nañ ko voter de mais peuple bi duñ ko nangu parce que le Sénégal et un pëpp libre Sénégal dafa am un peuple libre boo xam ni am na yenn nooteel yoo xam ni duñ ko nangu ñun da ngeen woote ko yii yëpp waroon nañ ko ci wax kenn waxu ko ci ñu wëlbati ko ci gannaaw gi daal di bëgg imposé une majorité alors que ay sujet de discussion la woon bi nga xamee ni ñëw nañ ni terrorisme ñëpp dañ ci engagé wu pour xeex ko dañu dañu dañu ko kontaane dañu mo dañu nekk benn Sénégal nanguwuñu dara dugg fi te dara dugg fi itam loolu nag su fekkee ni yàlla dogal na ñu yegg ba fii ngeen war a jël la pleine mesure de cette stabilité mën a xam ni ñii ay nit a ko def kenn waxul lu jëm ci yàq ko kenn waxul lu jëm ci homogénéité bi nga xam ne moom la sénégalais am acteurs yëpp àndandoo soutenir les efforts du gouvernement pour combattre le terrorisme ñu bëgg a terrorisme bëgg ko assimiler à des manifestations bëgg ko assimiler à des discours je pense que terrorisme c'est plus sérieux que ça et il faut revoir le texte et bien le rejeter je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Détier Fall et après lui ce sera